justement relation de de, de confiance entre administré yeeg administré administration bi day day yóbbu facilement nga def euh, benn pas ne relation de confiance entre la justice et les justiciables. Euh, Sénégal euh, weer yi ñu génn bari na lu ñu xalab justice bi loolu yow wax nga sax ne ces décision dañ ko war a appliquer sinon réew mi tas. mais lan nga yaakaar ne tey au delà Idrissa Seck président moom lañ waju war a def comme réforme pour que justement sénégalais yooyu am confiance du justice bi ñu yore. tout à fait boo seetloo. Mhm. Moustapha justice bi décision yi muy jël par jour bari na lool en général fan ngay dégg coow. bu leen concerné yéen bu concerné politicien bu ci politicien bokkee rek le dossier ba di am coow lu rëy mm-hmm. donc. yeneen décision yi tous les jours kii jël na këru kii kii et cetera tribunal di di def ay atte yoo xam ni doo ci dégg coow banque bi ameel na kii nangu nañu kër kii et cetera en général doo ci dégg benn coow mais dossier bu concerné politicien indi coow pourquoi est-ce que politicien bi dafa war a am immunité kenn du ko laal mhm. ak lu mu mënti def lu ko neex def kenn du ko laal walla dañu war a settantal li ma jàpp ne moo koy indi en général mooy accusation bi mooy dama lay topp ci wàllu yoon pour fa euh, faagaagal la nga bañ a nekk candidat ci élection loolu la ñuy wax hmm. donc ma ne première réforme nañu génne loolu bu mu amati bu mu amati c'est-à-dire euh, euh éligibilité bu ñu ko lié ak hmm. dossier judiciaire comme aux États-Unis nga xam ni population yi même yow buñ la condamné électeur bi rek moo am sañ-sañu wax ne mën na laa jox confiance am. wala mu na la ko de Trump. exactement c'est le cas de Trump. absolument yaa ngi koy gis. donc foofu li ñu jàpp mooy mbirum pal wala joxe responsabilité relation la entre citoyen bi ak ki nekk candidat. Mm-hmm. mais état. warul euh, mën a utiliser justice pour gàllankoor loolu je pense que loolu bu ñu ko dindee déjà bu ñu ko teggee coow dana wàññeeku politicien bi dana mën a dem ñu juger ko mais du wax ne dañu ma bëgg dañ maa bëgg a xañ ma nekk candidat donc argument boobu laa bëgg njëkk a dindi nga xam ni dootuñu lié euh, nekk candidat ak euh, am problème avec la justice loolu d'abord mooy li ma bëggoon a souligner mais réforme yi ñuy def dafa war a yokk indépendance su justice bi mais aussi seen responsabilité pour éviter le gouvernement des juges. dem par exemple le modèle américain des juges élus euh, voilà. dans les discussions que nous avons eues. au moment de l'élaboration de notre programme beaucoup de cadres ont recommandé qu'on aille vers cette euh, réforme-là. pour que les juges soient élus. euh, puisqu'ils rendent la justice après tout au nom du peuple euh, et, ou, ou au moins par le collège de leur père euh, nga xam ni c'est entre magistrats professionnels qui se connaissent qui se respectent euh, c'est c'est une des directions que nous empruntons. Mm-hmm. justice bi aussi ce sont les longues détentions préventives. c'est ça jàpp nit tëj ko huit ans dix ans xëy suba génne ko mu dem. amul indemnisation fekk ni. yàq nga addunaam yàq nga huit ans. exactement huit dix ans de sa vie. exactement si sa vision si loolu. waaw loolu d'abord tëj bi ci boppam laa jàpp ni pertement la. puisque am na yu bëri yoo xam ni même bu dul préventif. li nga wax moom moo ci gën a euh, euh, disons ñàkk yërmande vis-à-vis des populations puisque jël nit ki tëj ko pendant huit ans dix ans jugé wuloo ko mu jugi nga bàyyi ko te daanaka comme ni nga ko waxee. Mhm. yàq nga àddinaam ba pare dootoo ko mën a indil benn saafara bu mu mën a redresser euh, sa vie ou sa carrière bu mu mën a toppatoo famille loolu vraiment jaaduwul mais tëj ay nit aussi. même bu fekkente ne juum nañu euh, di leen dundal à la charge de l'État et de la population te du am benn mécanisme boo xam ni dinañu mën a jariñ seen société mën a am occasion ak opportunité repentiru ñu mën leen a faciliter l'insertion bi je pense que c'est pas adapté à am na alternative donc am na alternative ci tëj bi lépp luy alternative ci tëj bi loolu laay favoriser plutôt que tëj rek euh, ci kaso Idrissa Seck premier ministre doon na insister lu bari si la transparence tout à fait ci nga waxe woon ne dinaa jàppale góorgóorlu xeex njublaan alors année yii coow li mooy y a beaucoup de rapports d'organes de contrôle Sénégal bari na ci mais qui ne sont pas suivis lan nga yaakaar ne tey moom la ñu war def justement pour assainir euh, ni ñuy yoree koom ci réewum Sénégal ba ñu ñu dénk di rendre compte. tout à fait euh, d' abord euh, corps de contrôle yi euh, ñu ñu ñu ñu gën leen a dooleel euh, saisine bi aussi gën a direct nga xam ni euh, ñoom dañuy publier seen seen seen rapport directement sans absolument aucune difficulté te bu amee loo xam ni lii dafa laaj. dem ci justice ñu mën ko yóbbu directement traité ko. Mhm. Euh, man sama métier mooy audit audit laa def te audit defuñu ko pour sanctionner nécessairement dañu koy def pour def ay recommandations jubbanti yoo xam ni lii nii lañu ko war a yore mais fii bu ñu la inspecté rek day mel ni déjà dañu la jiiñ àddina tukki nag <laughs> alors que demewul noonu dañu war a saytu li nga xam ni lii moom la ñu moom moom la ñu yore moom lañ la dénk comme responsabilité de façon régulière nga xam ni comme ni ko ni ñu koy defee dans le secteur privé rapport au commissaire aux comptes rapport au auditeur régulièrement ñu seet les recommandations lii dëng na nii lañ ko mën a jubbantee nangam nangam pour que euh, difficulté de gestion yi gën a gën a wàññeeku ensuite corps de contrôle yi ñu am dañ ko bëgg a ak benn banqaas boo xam ni dañ koy déjjee spécialement gestion wu contrat sur nos ressources naturelles pour que ñu koy xayma à l'avance pour xam ndax contrat yi dëgg-dëgg sàmmoonte na ak njariñu Sénégal est-ce que défendre na les intérêts du Sénégal puisque ay contrat yu compliqué la notamment ci li aju ci gaz ak pétrole. am na ñu ne il faut ñu doon négocier. exactement mais am na itam beneen pàcc mooy bu ñu ko doxalee ba pare. nan la ñu koy saytoo pour xam ndax engagement yi nga xam ni investisseur étranger bi jël na ko vis-à-vis du pays. respecté na ko wala déet. Mm-hmm. muy di un débat intéressant mooy euh, ce qui li ñu tiire ci ressources yi. xaalis bi ciy dugg fan lañ koy def. ñii ne dañ ko war a préparer le caisse pour les générations à venir. ñii ne il faut investir dans les infrastructures ci wàllu santé pour yow xaalis bi génn ci koomu ressources yi Sénégal euh, meññe di feeñ Sénégal jamono yi. ci nan lañ ko war a investir. oui war nañu ko investir ci liy yokk koomu Sénégal. d'abord war nañu bu bu fekkente ne gaz bi la par exemple ñun suñu économie boo jëlee entreprise boo mënti jël ca tailleur ba ba ca soudeur ba ba ca entreprise bu mag bi defar euh, ay machine mm-hmm. li ko gën a sonal mooy facture courant coût de l'énergie ba ci entreprise de presse yi ba ci entreprise de presse yi voilà donc dañu war a utiliser loolu pour augmenter d'abord compétitivité suñu économie ensuite ku nekk xam na ne suñu économie banqaas bi ñu gën a war a dooleel mooy agriculture donc ci lépp luy engrais ci lépp luy énergie boo xam ni dana mën a xëcc ndox ñu am ndox de façon permanente je pense que déjà problème yooyu bu ñu orienté ressources énergétiques yi ba nga xam ni facteur énergie ci compte d'exploitation day wàññeeku wàññi charge yi bu baax améliorer compétitivité entreprise yi améliorer seen i bénéfice ñu am ay jumtukaay yu investissement dana dana am solo en ensuite ressources financières yi nga xam ni ñoo ngi ko ci euh, xaar comme contrepartie alimenter budget bi ñu orienter ko essentiellement sur l'éducation et la santé. pourquoi l'éducation et la santé. parce que yow Moustapha boo dee liggéey. loo soxla kàttan ak xam-xam ak jikko ñaar yi ngay combine kàttan gi li la koy jox mooy lekk gu baax mooy agriculture bi ma wax léegi élevage bi napp gi euh, ak sàmm gi euh, pêche bi donc yooyu ngay soxla ensuite da ngay soxla xam-xam xam-xam foo koy jële ci jàng donc bu fekkente ne euh, fajuwuloo amuloo xam-xam sa liggéey du mën a barkeel du mën a du du mën a antu donc loolu moo tax ce sont des secteurs prioritaires yoo xam ni mooy tabax le capital humain bi ñu yaakaar pour la construction du pays bëggoon naa ñu waxtaan aussi ci wàllum souveraineté sur ses différentes facettes alimentaire monétaire ak dans le sens de indépendance ñu démarrer par la souveraineté alimentaire lan moo si sa vision parce que depuis les indépendances ñu ngi ñuy dig bay dundee ñu bañ a di exporter di importer en tout cas jëlee euh, ñam lekk di ko jëlee bitim réew euh, te Covid bi permettre nañu ñu xam ne ñun dañoo war a compter sur nos propres forces lan moo si sa vision pour Sénégal du importer te benn lekk lépp ñu koy bayee fii si dëkk absolument loolu je pense que Covid bi moo ko gën a fësal mais ñëpp a xam ni loolu moo war a am bala ngaa am indépendance bala ngaa am souveraineté da ngay mën a dundal sa bopp au moins nourrir ta population ça c'est un impératif mais jaaduwul Sénégal di dunde ceebu Inde nga xam ni desit ya ñu desal ñoom ak la ñu war a exporter denc ko ab denc bu yàgg subventionné ko la ñuy la ñuy indi ci suñu réew mi donc souveraineté alimentaire c'est un impératif Covid bi wane na ne souveraineté sanitaire c'est un impératif ñaari souveraineté yii moom lu ñu war a taxaw la pour yokk mbay mi moo tax ma ne priorité bi encore une fois day ñëwaat toujours ci dund gi dund gi mbay mi càmm gi napp gi te am na ay solution yu leer yuñ ci mën a appliquer maa ngi jógee euh, ci ci ci vallée du bi nee nga tase nañu Saint-Louis mm-hmm. dem naa Podor et cetera bi ma eggee Podor ay jalu soble laa fa fekk yoo xam ni yii nee nañu dans une semaine naaj bi lakk ko ba mu nekk ndox kenn kenn du ko mën a jariñoo wala ñu taal ko wala ñu suul ko loolu jaaduwul war nañu am ay infrastructure de stockage te am na déjà ay privé étranger yu koy def di ci am alal ju kenn xamul nu mu toll lu tax ñun suñu privé yi mënuñu leen a dooleel pour ñu pour ñu def ko souveraineté foofu lay tàmbalee nga mën a dundal sa bopp nga mën a euh, faj sa bopp nga mën a am ay dëkkuwaay yu baax et puis nga am kaaraange kaaraange gu doy pour mën a aar say front